asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu taahu habu ya rasaqu ya maliki daftar habli wasmin kuñu ana léegi asina ajalan bil bishi ma amalim ahmadin hata tunji kana سبعني طوعا واحمني وقني هذا الوراء واكتب لي مسكنا السماء والأراضي وبها مشاكل أجب وأصلح منها حسن دي محمد وتفلي بها حمدانا سبحان ربك سامحا حوال مصيرنا والحمد لله حب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب خدمات بروحي وأمني دقي ñëpp ñu ngi leen di siyaare di leen siyaare ci bis yu tedd yi su ajjuma bi dëpp ak magal gu tedd gi suñu xol sëb laat gi di siyaare ñëpp it ci magal googu ñi ñi doon jëmat di wér jëm magal suñu ko Madina gi ñëpp rek di di di ñaan yàlla dolli leen dolli leen leer ak ak kawteef di di ñaan yàlla tax ñu ñu ñu ñu jël seen barke. ak Cheikh Xadim xam naa li tàmbale ci ñaanu ko suñ bi wax ne allahuma yaa man yaxudu bayna almari wa qalbi xul bayni wa bayna kulli man lam yuhibbani amin amin xam naa di moo du di indiwaat leeral rek leeral bu ndaw ci en position ci ja ja jàng wolof mbootaay googu nga xam ne ñoo ñooy wax loolu ñooy liggéey ci loolu liggéey li bu am solo si ànd Jóob jiitu woon nga gars yi am yàgg na am na solo lool xam naa jombut nit ñi léeg-léeg ñu ñu doxal samay wax doxal li ñu wax ne jombut xam naa. dama dul xam ba xam lu mu ci jublu daal nga xam naa man ko man ko fonk làkk wi laa su may waxaat keroog ci ca làkk su bi africain bi leer na ca ñu may ne ma leeral làkk wi waaye araf yi araf yi latin yi yooyu ñi ko bëgg a layal ne araf yu lay ñëpp bokk ak naka maam loolu moom ju xam-xam ci linguistique moom boo gisuma fenn fu mu wéree loolu yaakaar naa it nag nit ki bu dee layal ab tesamit war na koo teg ci xam-xam xam-xam it mooy la ñu jàngaloon ca sunu doyen ba docteur Hamdi Saq Suuq docteur Hamdi Mahmoud Saq docteur Mahmoud Hamdi Saq Suuq docteur Hamdi Mahmoud docteur Hamdi Saq Suuq rahimahullah moo doon doyen faculté bu usul diin ca ca jaamul asar wax nañu ak philosophe mooy koo xam ne waxi teyam mën naa weddi waxi démbam su gisee ne la mu waxoon démb wérut wala leerut gis na lu ko gën a wér wala lu ko lu ko gën a gaal loolu mooy xam-xam loolu moom ci lépp rek la maanaam damaa gis ay maa gis bokk ab expérience bi mën na atatal ko som safa kaman atatal ko ca Turquie ca Turquie mu def ci liggéey bu rëy ci ba mu bëggee def laïcité ci réew ma bëgg a génne nit nit nit ñi ci ci lislaam mu bindee làkku Turquie ci arab yi latin loola mooy lu mooy lu am am solo nga xam ne moom day tax génération yi ci kanam duñu xam si yéen trace misaal tey bu ñu bindee arabe latin bu ñu bindee wolof si musaaka yi wolof si si ba jaxate ci ci latin ku bëgg a def étude scientifique dëgg ci ci ci way yi yu si dañ may jaxate wala si musaaka yi da nga soxla lool cosaan la yéen ko bindee woon ca ca ca ca araf yi yéen ko jëkk a bindee loolu moom ci ci scientifique ku ci xam dara da nga xam ne loolu moom des koy soxla la ko topp jaanib taqdis yi muqaddas gi nga xamante ne noonu arafi arab lay muqaddas ci noonu ci sunu relation su mystique ci dimension mystique bi day muqaddas waxuma la waxuma ne araf yi muqaddas la de suñ traduction suñ tradition suñ sunu sunu sunu sunu baax sunu sunu aada sunu baax ak sunu dimbëk arafi arab nga xam ne ci lañ yekk alquran araf yi yooyu nga xam ne ci mystique dañ koy jëriñoo muy am jeexit araf yi am jeexit ci rawatina suufiyank yi araf yi am jeexit araf yu ne dafa lënkaloog turaas ba démb yuñ ji nga xam ne moom lañ ko mooña loolu loolu loolu loolu loolu di lu am solo di lu am solo loo xam ne dimension mystique la boo xam ne araf yi da ko am waxoon waxoon nañ ne sëñ Saliou sëñ bi daa nga ko jox mystique moo xam ne ba mu gisee ne dañ saan mandargaal araf yi la latin da ko daal téye jox du ko woo waaw kon man waxuma ne projet bi yii waxuma ne làkk wala yii bu mu jàll waxuma loolu de waxuma loolu de projet làkk bindee ko ci arafi latin laa wax ne bu mu jàll loolu moom moom bëgguma mu jàll moomu ma nag moom yàlla moom moom liggéey loo boo xam ne am na solo waaye am am na ci ci sama dimanche man sax am na njuumte njuumte yi mooy mooy lëkkale ñu ak ak ak ak ak ak tubaab yi lëkkale ñu jël ak ak bulletin yi loolu yaakaar naa liggéey boobu état bi moom jël na ko yàgg moom moo ci jiitu gaa yi yii yii fi ne waaye si sant jooju ñoom doon nañ ci liggéey. dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne lëkkale lëkkale ñu ak tubaab bi ci civilisation moo gën a noppale mooy tax ñu ñu gën a gaaw a dem loolu jullit ñi ñi arab yi bokk na ci leen gàllankoor ba tey dañoo jàpp ne modèle dëgg pour développement pour avancer mooy tubaab waaw xam ne nga xam ne seen démb ji seen démb yi lislaam ji ñoom jàpp nañu ne mooy tax moo tax ñu arrière moo tax ñu ñu tardé nga xamante ne ba ci sax ba ci sax weddi weddi yàlla sax pour dem ca renaissance ñoo ko tigu jamono ñoo ko tigu tubaab bi ñoo ko tigu dem ci kanam tubaab bi bi ñu gisee ne ñoom église bi da leen a gàllankoor nasaraan yi da leen na gàllankoor ñu ñu daal di foqat ci ko foqat ci seen seen kiifte ci loxoy idris bi daal di daal di départ gaa yi gis nañ loolu ko départ bu solo waaye problématique ba wala contexte ba wala xaw mooma bokkut ak suñu xaw mi noonu ñun problème yi amuñu ko jafe yi amuñu ko léeg-léeg yooyu amuñu ko kon danaa fi indi nag tey loo xam ne sama position boobu maanaam di ko gën a xóotal ndax sëñ Tuubaa aarif billaahi la koo xamante ne la gisam da da dafa dafa dafa sori dégg nga mu naan boo demee ci añ wax kubra bi page 627 da nga dégg muy wax naan washhad lii bi anni ataallamu wa uallimu bil arabiyati wa bi anni laa ataallamu wala uallimu bi xurufi nasara wallahu ala ma naqul wakiil nee na nee na yow yàlla seedeel ne man day danaa jàng danaa jàngale ci arafi arab bil arab yi maanaam kon lakk wala ba tey kon ñu wax lakk wa arab yi lakk wa lépp ci la bokkoon wa bi anni naka man laa ataallamu duma jàng wala uallimu duma jàngale bi xorofi nasara ci arafi nasaraan bi dégg nga ni ko tudde bi xorofi nasara mooy kon arafi latin yi duma ci jàngale duma ci jànge wallahu alaama naqul wakil loolu position suñu tubaab la position boobu it boobu it man ci ci falaane moom suñu bi ci teg ne waxad adxala allahu tabaraka wa taala kulliyati fi akbari ridahu taala mun yàlla dugal na moom buur bu tedd bu kawe bi suma lépp ci ngën ji màgg gi ngërëmam moom moom ko màgg ba fi ala wa fi ala wa fi ala rasulillahi sallallahu wa fi ala rida rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xanaa moom la nga xam naa noonu lay doon na na noonu lay doon nga xam ne kon moom ci gën a kawe ngërëmu gi itam alayhi salaam bari sa bi mu barak la axruju minhumaa mu ne la axruju minhumaa abadan du ma génn ci ci ci seen ñaar yi lañ gërëm loo subhaanahu wa ta'ala sama xam si na wax mi xam amin kon foofu kon li li ma fi leeral rek mooy li nga wolof moom moom kenn mënta dem Cheikh Anta Diop moo ko waxoon ne kenn du dem benn réew mënta dem te te te te jàngi wuñ seen làkk dégg nga sa bu ñu andi woon sa atome gaa yi def science nucléaire wala yooyu buñ dikkee mu laaj xale ba ne ko loolu jàng tey mu ne ko atome mu ne ko atome mooy lan mu wax ko tari ko ni gaa yi xool leen dictionnaire bi ñu xool ko mu dëppoog la mu wax mu ne ko waaw at loolu nga wax nag ci wolof lan la xale bi ne yàcc mu ne ko mooy xar til xar ba mu mënatoo xar xam ne kon ay seconde loolu matul minute moom xale bi daal di xam atom te te jàngal ñu ko mën naa am ay minutes yu bari wala ay waxtu yu bari te xamu ko kon pour mu mën a juddulu dara lu yees maanaam faaw moo balluloo ko ci aw aw lakkam gis gis nga masque yi noonu noonu ma ma ko doon balluloo masque get ci kaw ci suuf lan lay firi lan lay wundu kon kon mi kon kon man sama position bi boobu mooy position sëñ bu mag bi man de du ma nangoo jàngale wolof dëgg-dëgg wala mi ko ci jànge bi xorofi nasaara fi ñu toll man jàng naa mbindum wolof moom ba am ceeb certificat shahada bu état bi te mënuma ko bind fi ñu toll ndax dama ko sama xol ko nanguwut loolu nag loolu nag ci man la yéen ñi li ngeen di wax noonu di bind la mën naa wér mën naa wér fi yéen mën naa baax de ndax avancement ngeen bëgg te loolu baax na waaye man avancement gi gi ci man mystique fa lay xoolee lépp moo tax li wala lu ëpp yi dund gi mystique laa koy xoolee waaw loolu nag moom suñu suñu boobu moom moo ñaari noonu ma leen di di déglu bu bu baax nag it ci bu dee wax ji li ma waxoon ca keroog ci kees wax nga gë leen na daal waaye nag waaye nag xam-xam rek la xam-xam la waxtaan yi waxtaan yi faaw muy laal kii kenn laal keneen waaw dama gis suñ kenn faalu xëy na suñu naar bi yàlla ko yàlla gën a yàggal gën ko wéral mu ne ma mu ne ma Moustapha day Tuubaa ñu wax waxe dëgg ndax loo wax am ko ku jàpp ne moom moom moom ngay wax waaye fekk na boobu waxuma kenn. qul il-haqq min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur
salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu bokk yi ci kippaangu gi yëpp di siyaar ñëpp te di ko jaarale ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim ci kàddu yu am solo yi mu yëkkati di taxaw seetlu bu mu def ci làkk wi rawatina lu jëm ci wàllu loy yi diggante loyi arab yi ak loyi latin yi balaa ma ci àddu nag di jëm ci man taxaw seetlu bi ma ci am dama bëgg mu leer ci bopp ñépp ne Cheikh Moustapha moom ku bëgg làkk wolof la loolu moom ñi ko xamul ñoo koy laam-laame ak di ko ruumandaat waaye nun ci suñ jëmmi bopp duñ ko laam-laame duñ ko ruumandaat waaw jëmmi làkki wolof ak biri làkk wolof ak lépp lu mu làmbool Cheikh Moustapha da cee sax sat waaw loolu nag day baax nit ñi xam ko li tax ma koy wax mooy dama dégg ci biir kàddu gi mu mel ni dafa am ñu jóg di naatable taxawaay boobu mu am ci làkk wi waaye moom dadul ci jëmmi làkk wi ci jëmmi loy yi ñuy jëfandikoo la dal wax ci gis-gisam bu boobaa nag day yell ci képp kuy indi gis-gisam mu bañ a dal ci jëmmi Cheikh Moustapha ak digganteem ak wolofam wolof waaye day indi moom it ay lay ci Cheikh Moustapha li mu wax jëm ci wàllu loy yi ak gis-gis bi mu ci am waaw loolu day baax nu xam ko li tax ma ci àddu nag man Ismaïla Gueye am Cheikh Moustapha ci biir kàddu yi dafa tudd mbootaayu jàng wolof mbootaayu jàng wolof sama boroom dogal ma bokk ci ñi ko sos boobaak léegi mat na ñetti at moo tax sax ma di ci àddu waaye nag day baax it bokk yi teew lu xam ne Cheikh Moustapha laata sax muy def waxtaanam wii jur xëj na yi ci am man yëguma ko woon seeti woon nañ ko nun waa mbootaay yi mu dalal nu dalal gu rafet ganele nu nu waxtaan ci wàllu xam-xam ci wàllu làkk wi ak yamu làmboo ak kàngam yu mel ni Cheikh Anta Diop ak seen liggéey ci làkk wi mu waxoo nit gis-gis bii mu am ci wàllu loy yi kon tey gis-gis bii bu bu bu bu jugee ci lënd gi mu wax ko ci waxtaanukaay bu mu doon waxtaan mu jur lu mel ni day jaral mu dikk tontaat man dana ma jaaxal ndax bu dee waa jàng wolof moom xam nañu taxawaayu Cheikh Moustapha ci digganteem ak loyu wolof yi loyu latin yi kon man wet googu duma ca jëm ndax xam naa taxawaay boobu fi may jëm nag mooy li mu indi ci loyu latin yi ak gis-gis bi mu ci am ak gis-gis bi mu am ci loyu arab yi ak taxawaayam bu ko defee bu dee nun ñi nga xam ni nooy jëfandikoo loyu latin yi di ci bind loyu latin yi ñuy bind yi ñuy bindee dafa doon loo xam ne nii bi nu dikkee dañu fekk Senghor yoonal ko nga xam ni dafa nekk ci ndey sàtt réew mi ñu ne wolofkat dafa bokk ci làkk yi nga xam ne nii làkk yi ñu nangul la ci réew mi loolu mooy benn ñaareelu mbir mi nii nu koy bindee ak la ca aju décret ba ca amoon bu ma juumul atum junni la ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar 1972 bu dee juumuma ci ci ci ci ci année bi ci at mi ci lan génne woon décret ci wàllu njàng meeg njàngale mi waaw te diggante ci njàng mi ak njàngale mi nag daa am lu taxaw mooy lan la ñuy jàngee ci lekkoolu tubaab yi loyu latin yi la ñuy jàngee loyu latin yi nag foofu day am sew-sew bu mat a taxaw bu baax a baax du lu farañse yi moom ndax bu nu jaawale farañse ak nasaraan nasaraan diine la farañse di aw xeet aw askan nu xam ne it ni farañse du lu du lu yàgg waaw du lu yàgg de ndax bi ñu ñuy woowee ñoom pele yàdd ay kàngami waa pele yàdd ñoom ràbbaleeg ñu demee ni ñoom taxawoo ne dañuy bindaat seen làkk wi bind ko boole ko tuddee ko farañse boobu faran yi ñoo fi nekkoon far boobu it rom sax seen loyi latin yi lañ doon jëfandikoo waaw loolu it day mat a xam kon farañse moom dafa àbb ci loyi latin yi anglais àbb ci espagnol àbb ci portugais àbb ci ak ñu bari ñuy bindee ci loyu latin yi ñoom ñépp dañoo àbb ci latin waaw noonu it la wolof abbee ci loyu latin yi di ci bind moom itam mooy tax abba cadda wolof ak abba cadda farañse du ñu bokk loy yi bu donte a ci wolof farañse a lay wax waaye boo ñëwee ci baatu see ci farañse wolof du ko wax see cë lay wax kon bokkuñu dara li nu bokk mooy fa nu fa nu fa nu fa nu balluwee loy ya ñuy bindee waaye bokkuñu ni li li muy tekki ci làkk wi loolu it sew-sew bu mat a xam la waaw léegi nu xool latin mu doonoon it aw làkk woo xam ne nii làkk wu fi yàgg la ci xayte boo xam ni xayte bu yàgg la dëgg la gaa xayte Égypte moo ko jiitu moo ko jiitu fuuf ci bindiinu hiéroglyphe yi waaye bindiinu hiéroglyphe yi bi xayteeg latin yi ñëwee daa mel ni da koo mujj réeral fi mu ne nii hiéroglyphe nga xam ni bokk na ci bind yi njëkk ci bind yi kenn bindeetu ko daanaka man bokk xaw ma ko du ma ni amul waaye xaw ma ko xaw ma fu ñu koy bindee loolu lenn la ñaar dañuy xool kon ci wàllu buñ duggee ci wàllu diine nu gis ni lii di nu mu tuddati bible bi di di tawreet moom ci loyu latin yi lañ ko bindee woon te moo ne diine la diine jooju ca jamono jooju laata suñu diine jii di ñëw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ko lislaam la tuddoon te seen téere bi leen yàlla wàcceel ci looy latin yi lañ ko bindee woon léegi nag bi askan yi demee ba gis ni jàngu bi muy église bi ñu ngi nax mboolaay gi société bi di nax nit ñi ndax ñàkk gi ñàkk mën a dawal mën a liir latin ba mën a xam li leen seen diine wax bi nit ñi demee ba gis ni dañ leen di nax ñoom ñu ci ëpp di lekk seen alal ci lañ ne nag faw ñu tekki lu latin bii ngir nun nu mën ko dégg kon bu boobaa ñu ko doon jëfandikoo te xëj na ca jamono jooju daan dund wàllum tasawuuf bu boobaa ñooñu lan mooy doon seen atte ndax dañ naan amuñu mysticisme foofu it ab laaj la man wóoruma waaye damay samp laaj kon fi mu ne nii am na téere yu jiitu téere alxuraan ci loyu latin yi la dikkee woon laata lislaam di ñëw nag laa kon loyu latin yi yàgg na fi laata lislaam di ñëw bay wàcc ci arab bañ koy bind ci arab ci jamonoy bu ma juumul Seydina Ousmane loyu latin yi moom jiitu na fi bu yàgg ba ñu bind ci ay téere yoo xam ne nii ci diine la la la la jóge ci diine la doon wax ay nitu diine di ko dund waaw kon bu boobaa loolu it day mat a xam ndax Cheikh Cheikh Moustapha dafa waxaale ci wàllu mysticisme di xam ne ni mystique bi nekk ci loyu arab yi nekkul ci loyu latin yi léegi man wet googu ndéem duma ci boroom xam-xam dama koy duma koy dugalal ab laaj ne ko léegi ñi doon yob téere yu njëkk ya laata alxuraan te ñu bind ko ci latin ndax daan nañ dund mysticisme am déet ak buñ ko daan dund nan lañ ko daan dundee ndax loy yi da leen yàqloon seen dund mystique ou wala déet loolu ab laaj la bu jëm ci Cheikh Moustapha ah léegi nag nu ñëw ci wàllu linguistique muy ma làmmiñal yi waa léegi linguistique banqaas la ci aw làkk banqaas la boo xam ni liggéeyam mooy lan mooy di màndaxe waxin wi muy son yeeg niñ koy phonétique beeg ak yu demee noonu ak xam-xam bi jëm ci wàllu làkk ci bind yi ci sew-sew yi ñoom ci la ñuy liggéey waaye linguiste yi ca dëgg-dëgg ñoom dunu ñi nga xam ni nii ñooy indi weneen xam-xam woo xam ni xam-xam beneen xam-xam boo xam ni xam-xam bu am solo la ciw làkk te muy nos wax grammaire linguiste yi duñu ay grammairien te aw làkk ci grammaire am it mooy xam-xam dëgg-dëgg yukki xam-xamu làkk ci grammaire am la waaw waaye du ci linguistique am kon linguistique daa ñëw dolliku ci grammaire ngir jàppale làkk wi ci geneen anam waaye dëgg-dëgg yukki xam-xam ba du linguistique waaye grammaire la moom la wolof di wax nos wax kon loolu it lu mat a xam la lu mat a xam la léegi nag kon nun bu ma nee nun mooy li nu fi fekk ndax nun danoo danoo juddu fekk fi ñuy jëfandikoo Cheikh Anta Diop ci jëmmi boppam Cheikh Moustapha mi ngi koy jël ci niiral exemple di ko indi moom amoon na ay bindiin yu mu sosoon ngir nu koy bindee wolof te bindiin yu mu sosoon jëleewu ko ci arab jëleewu ko ci français yu mu sosoonal boppam la waaye kenn jëfandikoowu ko waaw kon moom ba muy sos bindiinam woowu ndax kon bàyyi woon na ci xel wàllu mysticisme kon jàpp naa ni kon boobu beneen gis-gis la waaye kenn jëfandikoo ko ba tey may xam la ni ci wolof am na weneen bindiin wu nuy woowee garaay nga xam ni bokk na sax bu ma juumul ci bindiin yi càmm gi nangu muy état bi waaye daanaka kenn bindeewu ko lu tax mooy bindiinu loyu latin yi ñi nga xam ni nii dañoo nekk ci njàngum tubaab dañ koo gën a jekku mu gën a yaatu mu dëppoo ak li ñuy bind te du tax ñu bokk ak français li muy wax du tax ñu bokk ak anglais li muy wax du tax ñu bokk ak espagnol li muy wax du tax ñu bokk ak portugais li muy wax du tax ñu bokk ak allemand li muy wax wala ay ñoom pays hollandais te moo ne ñoom ñëpp dañoo ab bi rek ci loyu latin yi daal di bind waaye nag dañ ko bind ci seen làkk kon dëgg-dëgg mbir mi du ci loy yi dëgg-dëgg mbir mi mooy jàngee saw làkk ci sa jàng xam-xam ci saw làkk foofu mooy mbir mi léegi nag jàngee xam-xam ci saw làkk foofu sew-sew day ñëw taxaw sew-sew bi mooy diggante bind ak wax du benn Cheikh Moustapha mi ngi joxe niral ci Cheikh Anta Diop bi mu laajee ab gone ak gone gone gi wàllu atom nun koy waxee ci wolof gone gi ne xamu ko mu ne ko xàttil daf koo wax waaye bu ko bindaloon it mu xamee ko nam ko ko waxee kon li ngay wax ci saw làkk buñ la ko bindalee te nga jàng aba cadda bi xam sa alphabet làkk buñ ko waxee buñ ko bindee yépp da nga koy xam kon solo si fi mu ne mooy jàngee ci saw làkk moo tax Cheikh Anta Diop daan wax ne làmmiñu jàmbur bu neexee ba mel ni tàngalit mënee su cee tàkkamtiku waaw mënee su cee tàkkamtiku léegi nag kon fi mu ne nii nun bi nu dikkee fekk Senghor yoonal lii mu yoonal nun nu fekk ko fi danoo rek ñëw dugg ci biir li nu yoonal ndax du nun mbootaay noonaan déet lii nu yoonal duñ ci aw ndax bu boobaa xeex bi da ngay jalgati yoon bëgg a xeex ay àq kon ngir sa xeex dëgg-dëgg mën a taxaw nu mën la koo nangul mooy liñ fi yoonal ci kaw loolu ngay taxaw booy xeex doog ciy xeex moo tax yiñ fi yoonal am na yu bari yoo xam ne nii ci wàllu bindiin ci wàllu waxiin ànd nu seeg ñoom waaye dañuy bind ñoom nañuy binde te lu tax ànd nu seeg ñoom dañoo dem ba li ma doon wax sànk yuqu xam-xam di grammaire bi war nu ñi lii nii la waaye du nee nu ko xamlee ñoom waaye nag du tax nu daal di ne déedéet kon dootuñu ko bindee bu boobaa ku ne day fàq aw yoonam ku ne di bindee nu mu ko soobee yëf yi du am nun ko sàttale kon loolu it sew-sew bu mat a xam la léegi meneen mbir mi mooy lan meneen mbir mi mooy ñi nga xam ni dañuy bindee ci loyu arab bi Cheikh Moustapha mi ngi wax bu ku ku ku fekk wolofalu sëñ Bay Jaxate wala wolofalu sëñ Musaa Ka wala wolofal bu mën a doon rek ci loyu arab dayo bi muy am du ko am ci loyu wolof bu ma juumul lool loolu la jubloo wax rek ci wàllu mysticisme bi ci ne waaw waaye man foofu it gis-gisu mystique bi la ba tey kon bu bu boobaa kon nun daa mel ni nun ak Cheikh Moustapha bokkuñu grille de lecture waaw bokkuñu grille de lecture moom fi mu taxaw di analyser bokkul ak nun fi nu taxaw di analyser kon li muy wax du dàq ca fam taxaw nu nit li ñuy wax du dàq ci suñ taxaw waaw léegi mag ña lu tax ñu daan bind wolof lu tax ñu daan bind wolof ci looy arab waaw wol arab lañ jàngoon jànguñu weneen làkk arab rek lañ jàngoon xam ci ay loyu arab foxe ba di ko wolofal di ko bind ñu naan wolofal yaa ngi nii di ko bindee ci loyu arab ndax arab lañ jàngoon kon arab boobu nga xam ni moom la ñu jàngoon moo tax ñu daan bind wolof ci arab waaw man damay wax Senghor waaye loyu latin yi ak bindiinu wolof ci loyu latin yi moo fi jiitu Senghor ca Faidherbe la woon ca Faidherbe te Faidherbe moo fi jiitu sëñ bi Faidherbe moo fi jiitu sëñ bu mag bi léegi nag gis-gisu sëñ bu mag bi ci loyu looyu latin yi waaw loolu sëñ bi la waaw loolu sëñ bi la xëj na jagleeg boppam la gis yu nu boppam la waaye ndax bu boobaa nun day tax nu dàq lii loolu it day tax day day doon sew-sew boo xam ni mat na xam te teewul ci sëñ bi bu ma juumul ku ñuy wax sëñ Balla Cero wala xaw ma sëñ Seex Cero ñoom ñaar kenn la ci ñoom dañoo jàngi woon farañse te bi ñuy jàng farañse sëñ bee ngi fi te ba ñuy jàng français ci loyu latin yi lañ leen di jàngalee français te bu ma juumul am na waxtaan boo xam ne dox na ci diggante benn tubaab ak sëñ bi sëñ Cheikh Coro wala sëñ Balla Coro teewlu ma kan la ci moo doon firil sëñ bi li tubaab bi wax di wax dox ci diggante moo doon làppatoo bi moo doonoon traducteur bi diggante sëñ bi ak tubaab bi mba xissa bi bu ma juumul sëñ bi ne ko nee ko day fen boo ko waxee xaw ma lu mu ko ci dig mu doog koy wax ci français kon sëñ Balla Coro nu mu def ba dégg français da koo jàngi woon kon amoon na kilifa yu bari yoo xam ne nii ci diine ji dañ doon dund dëgg dëgg mysticisme ba ci yoonu murit te seeni doom dañ leen yóbbu woon ci l'école bu ñuy wax l'école des des des des fils de chef ak seeni taalibe am na ñu fa demoon jàng ji ci diggante Cheikh Ibra ci diggante ñoom sëñ Cheikh Coroog sëñ kii Cheikh Ibra ci njabootam ñoom am na ñu jàngi woon français waa léegi ndax loolu dafa doon lu dox seen diggante mystique jàpp ma ko kon man li ma gis mooy dëggi dëggi mbir mi mooy nu jàngee ci sunu làkk nu nu ko jàngee baax na bu nu ko jàngee ñi ko mën ci looyu arab yi jàng ko ci looyu arab yi ñi ko mën ci looyu latin yi jàng ko ci looyu latin yi waaye li am solo mooy nu jàng sunu làkk waa kay nu jàng sunu làkk leneen lu dul lii rek mën na jur yeneen gis-gis yoo xam ni bu boobaa ku ne day taxaw ci gis-gis boobu ndax sañ na ko ndax ku ne ak sañ na am gis-gisam moom ci jëmmi boppam waaw kon foofu jàpp naa ni sew-sew la bu mat a xam waaw léegi nag Cheikh Moustapha moom gis-gis bi mu am ci wàllu loyu latin yi moom taxawaayam la muy position am nangul nan ko nun lii nu fi fekk ci wàllu loyu latin yi ci nu mu tuddati ci farañse bi du farañse waaye dañoo àbb ci latin ni farañse àbbee ci latin di bind te bu nu bindee farañse bind ñoo bokk loy yi ñuy bindee waaye duñ bokk lu ñuy wax de ndax bokk nu aw làkk kon jàpp naa ni foofu sew sew la léegi nag fi may tëjee sama sama kàddu mooy kon lay wi doonul rek ni ñëpp a ngi bindee ci loyu latin dañuy bindee ci loyu latin lay wi day dañ fee fekkul weneen yeneeni loy waaw kon nun ca dëgg-dëgg arab du sunu làkk du sunu làkk kon ku taxaw ci arab di di di loyu arab yi bu boobaa nan nga koy layalee ndax du sunu làkk te lu jiitu lislaam di dugg ci Sénégal ñu ngi doon wax wolof ñu ngi doon wax wolof wóoru ma ndax ñu ngi ko doon bind waaye ñu ngi ko doon wax te lislaam bi mu duggee Sénégal ci la arab daa di am cër bi mu am Sénégal ba siiwee nii mu siiwee ba nit ñi jàng ko nii ñu ko jàngee kon lu teewoon xëj na sunu maam ya lu jiitu lislaam di dugg ci Sénégal amuñu woon seen bindinu bopp seeni loyu bopp loolu it laaj la ndax amoon nañ seen bindinu bopp yu bokkut ak looyu arab ndax xamuñu woon arab yu bokkut ak looyu latin ndax xamuñu woon latin waaye daan nañ wax wolof ci lu wér waaw ndax amoon nañ seen bind ci lu dul ndax ci lu dul di bind arab wala di bind latin kon ñi nga xam ni dañuy bind ci looyu arab it liñ ciy bind bu weesoo aspect mystique bi Cheikh Moustapha di évoqué dañoo ab bi rek ci làkk jàmbur di bind waaye bindeewuñ ci seen làkk dañoo ab bi rek ci arab di bind waaw te arab it wér na ne lu jiitu nu mu tuddati laata yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw gis nga sax ni ñu yéexee bind ni ñu yéexee bind téere bi kon am ñàng yaatu fa woon lool ba ñépp mën a dawal ci arab yi déedéet tey lu jiitu loolu ay xarnuy xarnu ay siècle siècle loyu latin yi ñu ngi fi woon di jàngale diine yonent yàlla Moussa di jàngale diine yonent yàlla Isa ah kon foofu kon sew sew la moo tax ma jàpp ni kon li li liy dëgg dëgg mbir mi daal mooy na wolof suqaliku ak fu mu suqalikoo ak nu mu mën a suqalikoo te awma sikk sàkk ni Cheikh Moustapha moom na wolof jëm kanam moo ko ñor waaw loolu nag jotewul ak taxawaayam dara nit ñi wax tamit foofu nuy def xàjjatle googu waaw foog ñuy xàjjatle xalaati nit ki ak jëmmi nit ki foofu nu koy xàjjatle buñ ko xàjjatlewul rek daal di njuumte day daal di yomb waaw kon nun ca dëgg dëgg lu waroon a doon sunu ndam mooy nu am sunuy loy bopp ya seex Anta Diop fentoon waaye loolu kenn jëlu ko garaay bii ñu fent kenn jëlu ko ndax bu dee la seex Anta fent wala garaay benn du ci loyu latin benn du ci loyu arab te Cheikh Anta Diop daanaka Cheikh Ibra moo ko yar kon jàpp naa ni wet googu it mat naa xam mat naa xoolaat waaw kon nun ca dëgg-dëgg danoo waroon fent suñu bindu bopp waaye arab yi moom mënuñoo taxaw ne loyu arab yi nuy bind moo gën loyu latin yi nuy bindee ah bu boobaa nag gis-gis boobu day doon gis gis-gis boo xam ni nii ku ci nekk yaay xool la la ca gën a jubu waaw noo ngi jéggalu ñëpp loolu rek laa doon leeral jërë ngeen jëf
waa kay jërëjëf Cheikh Moussa Al Karim ci leeral yi
li nga indi ci wàllu christianisme fekk na mu lëkkaloo ak loy latin yi am na solo waaw foofu nag la xalaat bi war a jeng jëm mooy amal suñu yëfu bopp waaw fi mu ne nii man ak keneen danoo bëgg lu yomb rek moo tax ñu ne ndéem fekk nañ fi lii nañ ci ngoy rek moo tax amagul waaw waaye indi suñuy loy bopp loolu mooy yilla ji waaw ni ko siin defee ak ñi nga lim muy perse yeeg afghan yeeg waaw ni ko indo indo yi defee ñoom ñëpp dañoo am seeni loy bopp kon nun waroon nañ mën a am suñuy loy bopp waaye nag dañuy dellu démb waaw laata feder bu di dikk dañ fi amoon nguur bu mag a mag a mag bu ñuy wax mandé muy empire mandeng ca ñoom Sunjata Keyta ñoom nga xam ni bokk nañ ci ñi njëkk a am ndey sàtt réew muy la charte du Kurukan Fugaan boobu nga xam ni ñu ngi ko bindoon ci atum junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn bu ma juumul bu ma juumul bu ma juumee dinaa ko gàggantiwaat nga xam ni danoo jëloon mboolaay ga nu ne nu lootaabe ko mu xam nu muy doxee waaye léegi nu nan la nu def nan la nu def ba hiéroglyphe yi nga xam ne nii ca Égypte gu njëkk ga la amoon réer ba waa Égypte ñoom arab yi dañu leen mujj noot nuy bind arab waaye binduñu hiéroglyphe nan la nu def ba mandé yi ngay wax muy waa empire mandé nga xam ni moo ëmboon booba Sénégal sax amul woon waaw moo ëmboon réew yooyu yépp ak empire ganaak empire yooyu nan lañuy def ba ñoom it taxaw luñu seen bindi bopp ndax foofi dem daanaka bu weesoo ñi nga wax ci éthiopie ak ñooñu bindinu latin yi lañuy bindee waaw loolu ndax ak càggante la wala wala lan la wala lan la leneen li mooy boo dikkee Sénégal sunu maam yi fi nekkoon waaw sunu maam yi fi nekkoon lu tax fentuñu seeni bindi bopp moo xam ñi jàng arab ak ñi jàngut arab lu tax fentuñu seeni bindi bopp seeni loyu bopp walis ñuy jàpp ci arab bi ñoom it ngir daw latin bi ñiy jàpp ci latin bi ngir daw arab bi lu tax ñoom it fentuñu seeni bindi bopp kon daa mel ni nun suñuy maam ñoonu tooñ nag waaw waaw ñoonu tooñ waaw nuñ def ba mbind yooyu yépp sànku kon fi mu ne nii li nga wax nag lu ma ànd téeméer ci téeméer la. mooy sunu warteef mooy fexe ba am sunu bindinu bopp loolu nag leneen liggéey la laaj ah te loolu am nga ci cër yow ci sa jëm bopp yow lan ngay proposé ci wet googu ci ñu am sunu bind bopp. waa kay xam naa li may dolli rek mooy li ma doon wax ci wàllu looy latin yi ak diine yi nasaraan waaw waaw xam nga dañ koo sotti rek ci seen diine. maanaam bi ñu bi ñu bi ñu àndee ci diine jooju ak romain yeeg yooyu ci lañ ko sotti ah ndax bu ma juumul romain yi ñoom seen mbindin wu njëkk wa looy latin la ah looy latin yi la kon dañ ko sotti rek dañ ko sotti ah di ci di ci jàng seen diine am ñu ci doon dëggal am ñoo xam ni nag dañ koo soppi rax ko def ko nun ko déggee ñoom bindee ko nañ ko bëgg a bindee loolu laa jublu woon a wax ci ne diine nasaraan yeeg yahud yi ñoom ci looy latin yi la ñuy bind loolu laa jublu woon wax waaye bu dee yahud yi sax nag ñoom ñoom dañoo am seeni bindinu bopp muy hébreu bi ñoom demuñu sax ci looyu latin yi hébreu bi la nasaraan yi kay ñoo dem ci looyu latin yi waaye ak lu mën a xew daal li may tëjee sama kàddu mooy nun ñëpp dañoo war a xalaat ana nan la ñuy def ba taxawal sunuy loyi bopp dootuñu tënku ci arab bi dootuñu tënku ci nu mu tuddati ci lati looy latin yi waaye dañuy am suñu bindinu bopp waaw loolu nag liggéey boo xam ni la liggéey bu bu rëy lay doon boo xam ni maas yii di ñëw nag ñoom ñoo cay jëriñu waaw nga xam ni maas yii di ñëw ñoom danañ nànd mbind ma danañ ko xam waaw dana dellu ci seen bopp ci seen mbatiit seen aada seen cosaan dana dellu ci seen baax ak ni ñu tëggee woon seeni mboolaay loolu jàpp naa ni ñi jàng arab ak ñi jàng tubaab ñoom ñépp te làkk wi ñor leen ñoo war a am ab lël boo xam ni du doon dara lu dul xalaat ci ana nan la ñuy fentee suñuy loyu bopp ba mën di ko bindee ba ku nuy askanaleeti sunu mbindin doo wax ni arab bi la doo wax ni latin bi la waaye da ngay wax ni wolof la ay wolof sos ko waaw sunu maam ya nag toon nañ tooñ nañ ñu tooñ nañ ñu bu baax waaye nun bu nu moywul danañ tooñ suñuy sët ak suñuy sëtaat ak suñuy sëtaat ci sët waaw te loolu it jëmalewul yëf yi kanam kon Cheikh Moustapha noo ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di sant ñëpp jërë ngeen jëf waaw fii charte mandé bi dama juum 1222 la mooy atum junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar waa kay jërë ngeen jëf
ah tubaarkàlla Cheikh Moustapha al Karim jërëjëf jërëjëf ah waxtaan wi moom ci yow la ñu jëriñoo waaw jëriñoo nañ ci bu baax a baax a baax a baax ah xoolal lii rek xoolal lii ah lii nag ca lañ war a dellu ca lañ war a dellu ah buñ ci delloo rek danañ mujj am waaye nun xam nga nag ndeysaan Sénégal bokk na ci li leen gën a déyal tardeel mooy Senghor mi fi nekkoon te nekkaloon fi tubaab yi ah moom jéemu ci dara moom jéemu ci dara ci suñu yëfi bopp lu dul yenn wax yam doon wax rek ak xeex yu mu doon xeex naan day xeexal der bu ñuul rek yooyu waaye jéemu ci lu mooy loolu jéemu ci dara Cheikh Anta Diop ma doon jéem dañ ko gàllankoor ay yëfam gis nga fexe na ba jébbiwul jébbiwul ndax da ko jàppee woon wujj ci wàllu politique waaw waaw moo tax nag kon fi mu ne nii faw nu dellu ci lii léegi nag loolu moom alhamdulilah ba nga nu tàllalee loxo man moom lu ciy sama cër danaa ko dox ci waxtaan ak nun ndaw ñii nga xam ne nii suñuy at soreegul nu xool ana nan la ñuy def ba génneewaat lii waaw ngir dellu ci suñu bopp nag waaw dellu ci suñu bopp ngir am am gi ngay wax mën a ne nu mën a am nu itam ba suñu njaboot bu ñëwee bu ëllëgee fekk fi suñuy bindum suñu mbindum bopp ñu mën di ko dundal mën di ko doxee bu boobaa tubaar kàll rek waaw waaw waaw tubaar kàll rek waaw sant nañ bu baax jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waa alhamdu xadim waa tërbir xi ñu ngi teg néew ci ci loxo maam moor maam moor ak Ismaïla liggéey di leen seere bu baax a baax li li nga wax am na am na am na solo xam naa leeral nga ko moom maanaam arafil latin yi moom peut-être bu ko fi dugal kon colonial yi ko yi ko fi yoo ko fi dugal arab yi moom ñoo fi dugal l'islam suufiyanke yi doon yi nga xam ne ñoo ñëwoon Gana ak Mali waaw ñoo fi dugal arab yi arab yi am na ci nag loo wax lu am solo ñaari moom kenn ku ne ci ñun ñaar koñ bi muy bi muy wala wala xaw ma njaal bu bokkut ak morom ja waaw waaye am na loo xam ne ma dàqaat ba xam daa mel ne latin dañ cee sotti bible bi tawraat ak injil dañ ko caa sotti waaye tawraat injil moom dañoo wax ne araami yi loxatul araami yi bu yàgg ba ci ci mu ne wax ne sina isa moom moom moom alayhi salaam moom lañ wax ci lañ ko bindee loo bu dee ci ci tawraat yi dañu wax ne ci ibril ci lañ ko bindoon am na am nañu wax loolu waaye latin moom tubaab bi yee sotti ñaari téere yooyu ci seenu nu làkk latin mooy mooy mooy mbind mi nga xam ne ak làkk bi nga xam ne moo jur làkk Europe yëpp ci la làkk Europe yëpp banqaaso mooy làkk ndey ja ci ci la français ak anglais ak allemand yëpp portugais ak espagnol yëpp ci ci lañ génne boo demee Italie italien ak espagnol ak ak portugais ñoo gën a jege sax latin ndax ñoom ñoom dañoo jëloon direct ba gis ne kat te renaissance bi am na ñoo ko tëgg dañoo wax ne kat léegi làkk ñu gën a yomb la ñuy wax mooy direct latin bi moo tax moo tax français ak allemand moom ñun ak anglais ñoo gën a dëgër. waaw waaye lépp ci latin seen ndey mooy latin waaye kon ñu xam ne tawraat ak injil moom latin doon ci cosaan la dañ ko caa sotti waaw waaw it li nga wax it ci mystique bi de li ma mystique bi li ma ci li ma ci jublu mooy mooy làkk wu ne wu am démb am trace ñu di ko bind di ca wax di ca sotti bu yàggee day am lu lu rogalaat ca araf yaag ca lamuy wax làkk wa ak làmmiñ wa ak mbind ma day am bu coro garaat ci mystique nga xam ne ne araf yi léegi day am lu mu làmboo suñ tubaab bu muy wax xurfi nasaara kon latin bi lépp ci ak ci christianisme dafa christianisme an nasaraan yi lay wax christianisme mooy ku ku ku soo ko waxee day mel ne kon ñoom lañ nekkoon moom si nañ saa nekkoon déedéet nasaniya xaaral inaa nasara nasaniya mooy nasaraan bi sun maam yi dañoo dañoo lënkale woon ñaar yooyu xam ne que ñi ko ñi ko fi indi boobu tubaab yi bu ñëw dañoo ànd ak ay ay ay ay ñoo xam ne ñooy leen di wootal ci diine ji xam ne ñoom bu ñu bu ñu ñëw diine lañ boole ak seen xalaat ya indi moo ñaare ko ko moo tax moo moo tax loola nga xam ne am na am na kenn ci ñooñu nga wax ne. jàngoon na tubaab boobu jàng tubaab suñu suñu baa ngi ci géej gi mu bëgg a bëgg cee xam dara loolu loolu dara néew ci donte ne mujj gi bi ngay wàcc liggéey nañu dénk na doom di di ko ko moytu loolu loolu moom leneen la loolu moom leneen la sëñ tubaab wax na ci ci xasida yi ne lakk chakartu jërëjëf pour merci kon day wane ne kon lakk yëpp kon yëpp a baax lakk chakartu chakartu mooy jërëjëf mooy merci kon loolu moom làkk wi kii maanaam dara niwu ci waaye suñu Ismaayla wax nga lu am solo ne dañoo waroon a fent su su su sunu sunu arafi bopp waaw looy nga ko tuddee arafi bopp fent ko lan moo tax mënuñu ko maanaam bu ñu bu ñu amee dëgg dëgg yitteeg ful la dañu war a mën a jël ay araf yu mën doon si xam ne yow ñu xool yam génne ak keneen génne ñu xool ca yoo xamante ne. dana dëppoog sunu la sunu làmmiñ loola lu am solo la lu am solo la man fi ñu toll sama daara jëlee ci Faataar Faydu ak Kabiri Saalihiin maa ngi ci xalaat làkk yooyu yëpp séeréer bambara joola mandinke saraxule wolof làkk yooyu am taarix ñu ko ñu ko fa jàng di di ko bind te su boobaa làkk wu ne dañuy xool araf yi nga xamante ne dana dëppoo moom wala ñu jël wenn araf wenn araf te loola moom laa gën a jooyal wenn araf boo xam ne ñëpp dañ koy bokk demal Iran demal Pakistan seen seen araf yi arab yi nañ ko indi te te Iran perse yi ñoo ñoo jiitu Rome alif laam miim ghulibat Room booba perse yi ñoo ñoo gàñe Rome yi perse yi ak ak ak ak pharaon yi ñoo ñoo ñoo jamonante waaye boobu booba la booba la latin boobu amut la tey boobu amuñu daanaka boobu na ndax mooy ca muy buddi ko Égypte la Socrate ak Platon ak ñoom ak ak ak ak ak Pythagore ñu dem Égypte di jàngi kon li nga wax am na solo lool waaye jani wàllu mystique bi moom lool la maanaam làkk wu nekk am na ca am na ca baatinu araf yi loolu loolu ñi ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo mystique ci. mu xam la saara wala tu yàlla xam nañ araf yi araf yi lu mu doon araf yi am na jeexit boo demee ci ci la sakaay daan sirul kaw nii sirul sirul kaw nii mooy abajadda ñaar fukki araf yi juróom-ñett mooy secret kaw ni bi yëpp côté côté wu na ci loolu kii la la arab yi seen mbind woowu dañ dañ koo jaxase ay ay araf yu bari lañ jaxase indi seen mbind bopp maanaam am huye identité am daal di am loolu koy sëñ bi yéen yéen maam Mor Ismaïla loolu koy man loolu koy sëñ bi sëñ bi bu leen topp rek nekkat fitar bu la mu indi woon Senghor ki nangam ko loolu taw di wéy waaye war ngeen mën a indi seen araf yi bopp yoo xamante ne dañu jëmmal demal ca Éthiopie Éthiopie dañoo am seen seen seen mbindinu bopp demal ca the General History of Africa boobu UNESCO génne woon xaw ma histoire Sénégal bu Afrique ca premier bu leen ba dañ ci fekk man dinaa ci bind mu ñaaw wolof la wax mu wolof la wolof wolof ndax di nga ko wax wax ci arab noonu te masuñu ko xam naa ne ko xam naa ne ko yor naa sax version français bi naa ko xool ba xam wolof la am déet waaye mi mbindinum mbind isaan ci mbindinum Mali moo xamante ne faatixatu kitaab lañ ci bind ci seen bindin yi xam ne du latin du arabe du yëpp mu amuy lu am solo yooyu kay sëñ bi dem leen dellu ca xool ba xam ñu indi suñ suñ suñu yëfi bopp waaye fédéral bu la mu andi woon loolu kon mbaa du ñu yóbbuwaat ci ca colonialiste yi loolu rek la xaar ba ngoog waaw waaw loolu rek la ci ci ci lañ jubloo leeral sëñ Tuubaa moom moom la gisinam woowu gisin la woo xam ne ci mystique la waaw rafon nasaara seen araf yi araf la latin yi taarix bi taarix bi gën a lëng ci histoire latin yi mooy mooy christianisme soxna bi xam naa waaw soxna bi naa xam ko waa kay waa kay waa kay jërëjëf jërëjëf indi naa la foofu foofu sax ci ci soit général bu yës ko génne woon wute doolu bu jëkk bi boo xoolee foofu foofu foofu ñun moom moom ñu kii boo boo boo ubbee na na fa gis presse bi presse presse boobu moom rek joxañ boobu wolof ñu te wolof am na ci ci boo xam ne fatiha la ñuy jël lañ ci bind ca làkku faafaay ca mari bari na bari na ki yàlla nga xam ne yooyu yëpp kon moom mën naa nekkoon waaw kon nañ war nañoo mën a wut mbind moo xam ne du arab du du du latin du du du leneen muy muy muy sunu bi bi bopp fexe nag ba noonu otip bi def ñu def ko rek maanaam fexe fexe ba am rek ba am waaw ba am am ngi moom da da am solo donte ne ne ne suba lay doon wala guddi wala waaw dama bañ a tudd ay at waaw kon kon mi ngoog ñu ngi sant bu bu baax a baax waxtaan bi am na solo lool ndax jeqi na ay xam-xam yu yu sell yoo xam ne da danañ delluwaat ci suñu bopp bala ñu génn génn suñu bopp di di te sant naa am sant naa am xam naa xam naa kon liggéey boobu moom liggéey boobu waaw man man man kay am naa ci wàll bépp koo xam ne ëllëg yi Afrique itteel la rawatina ëllëg yi sunu réew mi kon ah kon loolu dina la itteel kon kay maa ngi ca tem tem turaay ci ci ci kàttan fa ca sama xam-xam yam ok jërëjëf maa ngi taral wax ñëpp sama temps wala. sama temps temps wala ok ok jërëjëfati waay jërëjëfati jërëjëfati waaw noonu rek la noonu rek la noonu rek la de fexe daal ba am am rek a baax de am rek a baax waaw am am rek a baax. Cheikh Deme lu mu daaw soow gaa yi naan ko pas-pas yeeg nangam mu ne bu ñu amee rek ba ba noppi. kuy kuy doon jullit doon jullit kuy doon leneen doon ko waaw waaw ñu wax de waaw waaw sant